si la mais champion bi Gris 2. Alaaji Fadam. Gris foo Gris fi nga nekk lëndëm na de ci loo nekk. Alaaji Fadam maa lay ziar bu wér a wér a wér. <laughs> bàyyi nga am jàmm. ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah. am na Gris Bordeaux mbaa loxo bi mu ngi tane. oui alhamdu alhamdu mu ngi sant bu wér a naka coono yi mbaa yaa ngi jàmm. ñu ngi sant yàlla naka maa ngi lay ziar di nuyu gars yi nekk si ligne bi yëpp. Mm-hmm. am mais mais Gris mën nañoo xam mën nañoo xam Gris Bordeaux blessure bi nan la ko dikkee ba tey jii mu mën a yàq làmbam jox ne un mois moo ci def te Gris Bordeaux xamee wuñ ko combat am en général sax di yàqu wala ci yooyu. waaw am na am na loo xamante ne moom comme niñ ñu koy waxee rek képp kuy sportif mën na am mën nga koo comprendre mais comme que làmb moom période bi période bii moom bu ci làmb yàqoo rek mu juge ci yow bu yeboo nga xam ne di nga dégg lu ne mm-hmm. loolu moom yaakaar naa nit ki sax war nga koo préparer parce que dafa xaw affaire yooyu dafa xaw a bëri ci làmb mm-hmm. mais li am importance tamit mooy nit ñi bañ laa xam ci affaire u tricher wala yu demee noonu. Gris mm-hmm. moom ku ko xam ku ko xam ak fi mu toll ci làmb amul benn intérêt pour di reporter ay làmb. bu la leeree ne làmb li la ci dese matatul sax cinq ans. Mm-hmm. kooku moo gën a am moo gën a am intérêt pour bëre li muy pour bëre ay combat am. waaw mm-hmm. ah, mais blessure bi comme blessure bi yëpp la rek kudd la. si kudd bi la mu ci doon teewul doon nañ ko maintien. préparé pour lépp mais daf cee gaañuwaat boxe ñu dem xool ko muy déboîtement quoi loolu moom nit xam na ne moom nit mënu ko bëriwaale. Mhm. mais mais mais yaakaar naa ne kon guddi Gris Bordeaux mën li des saison bee ñëw lay bëriwaat ci kàttanu yàlla moom Ama Baldé mais tey jii yaakaar naa ne bi loolu dalee Gris Bordeaux moom nan a réagir moom. waaw xanaa am lu ko naqari report combat moom loolu xaalis bu yàqu la bu bëree bëri temps bu yàqu la tamit parce que combat nga war a puusaat benn trois mois wala quatre mois pour bëriwaat loolu ñëpp xam nañ li nekk ci préparation loolu moom dem bëre dem bëre ñu daan la sax bu dee koom rek ngay wut wala xaalis rek comme ñu bëri niñ koy waxee rek bu doon xaalis rek moo intéressé Gris mënoon na dem maintien combat bi lum mu fa am mu jël ne xale la doon bëreel dem toog waaye bu nangoo blessure pour préparer waat ñëw mooy respecté na combat bi respecté na amateur yi. bu ko neexoon ñëw bu doon xaalis rek ko intéressé mu ñëw taf yëngal pare ci lendemain ba mu nga dem jël sa reliquat dem toog mm-hmm. waaye respecté làmb moo tax aptul pour bëre ñu ñu renvoyé ko te loolu yaakaar naa deux deux fois la ko dal ci carrière am yëpp vingt cinq ans de carrière loolu arrivé la deux fois loolu war nañ ko mën a comprendre. loolu loolu loolu am na solo yaakaar naa ne tey jii Ama Baldé nekk benn révélation ci làmb mën nañu wax ne sax sa morom la wala mu jiitu ci làmb du bi. Ama mhm. Baldé toog cinq ans ba six ans bëriwul loolu lu métti la ci mbër. non Ama Baldé moom saa mhm. li ko dal moom yaakaar naa képp kuy mbër. même boo doon noonam sax mm-hmm. yaakaar naa war na la metti mm-hmm. parce que toog cinq ans bëre woo di am ay combat répétitif yoo xamante ne man dama koy xool rek si sama combat ak Abdou Diouf bi nga xamante ne da doon ñëw ba jege si Covid bi ñëw mm-hmm. ñu renvoyé ko li ma ci daj yëpp ak li ma ci perte yëpp man rek maa ko xam fay jugee lu bëree bëri bëri day wàññi ci yow ci sa wàllu dundi nag ci lu bëree bari kon moom mi nga xamante ne dal na ko mu répété wu ay deux fois trois fois moom lu méttee métti moo ko dal bu amul jàppale dëgg mm-hmm. day métti si moom trop mm-hmm. waaw moo tax ñu ngi ko si masawu bu baax a baax waaye nag yàlla moom lu mu dogal ci nit rek amaana bu amee lu mu la dencal foog mu jafeelal la affaire yi wallaay ndeysaan waaw moom ñu ngi ko ci encore ñu ngi ko ci masawu bu baax a baax léegi boo amoon ci carrière nekk na carrière boo mbër moo xam ne nii am famille ñu yaakaar ci yow nga war di joxe dépense toog benn cinq ans boo xam ne six ans boo xam ne nii naroo koo bëree mu nekk lu métti ci moom boo amoon message boo koy wax en tant mbër lan nga koy wax Gris waaw moom yaakaar naa li ko ñëpp <laughs> li ko boo koy seetaanee ay réaction am rek ak li muy wax rek nga xamante ne nit la nangu dogal quoi <laughs> ndax comme ni koy waxee toujours rek gëñ naa bëree mais teewul kenn dégguma ci lu ñàkk fayda kenn gisuma ci dara loolu moom dèjà rek moom préparé na boppam mm-hmm. te doomu aadama moom noonu la war a mel mm-hmm. waaw bu mettee nga jàpp xam ne dina ñëw mm-hmm. li ci am importance mooy si performance bu bu baax la jóge te làmb ku ci rawul rawoo ko ci parce que li ko xamante ne ba nga gëjee daanu kenn xamul kañ la bu pare nga gëj ci làmb gaa yëpp namm la di la di la xaar toujours lool rek déjà mo am solo ci lamb quoi. Mm-hmm. waaw man dal lima koy wax moy na japp rek yalla baxna na. amna am solo yaakaar naa ne Gris 2 fu may tàggoog yow rek moy ndakarou fani yi ñu tollu dañu am ben révélation bu ñaan ara fas hmm fani suñu borom teg ko ay natt yu metti mu nekk ci kasso mm-hmm. ba ñu war ko té 1 an. Mm-hmm. bo amoon kaddu yo ci wax ci ara fas yan kaddu nga ci wax. ak yan kàddu ngay ngay ngay nga xam ne ni tey ñu mën. waaw loolu mu dellu ci waaw loolu moom si sunu kaw la dal ndax ku xam Ada Fass xam ne ñoo bokk gox yi ñuy représenté. Mm-hmm. gars yi sax damay dégg toujours ñuy réclamer giri yi giri defu ci dara gisuñu giri nangam nangam gis naa gars yi di ci réactionné. Mm-hmm. mais giri moom nekkul li mu nekk sama mag a tax. Mm-hmm. mais Père Allé sax wax na ko. moom ay coono doomu aadama moom loolu dox ci da koy giri du yeewu fajar day yeewu di tëddaat day naaje yeewu mais yu mel noonu seetlu naa bo yi muy dal ci làmb yëpp wala muy rek réglé da koy jaral yeewu fajar di ci dox di ci wax mm-hmm. te problème mu Ada Fass bi malgré gars yi yëguñu li mu ci def mais seeti na ci ay autorités yu mag ci réew mi di leen ko jàmbat hmm? moo tax gars wax dañu dañu dañu xamul rek moom ni muy doxee tey Bébé Saloum day taxaw fu nekk naan giri daf ma doon guddil daf ma doon bëccëg moom dafa baax rek hmm. moo tax mu wax ko mais xam naa ne bu ko waxul woon kenn du ko mës a ci àdduna kan loolu ma ne Bébé Saloum mu amee problème police toujours day gërëm giri quoi ci taxawaay bi ci giri def hmm. ma moom bu ko waxul woon kenn du ko mës a yëg hmm. ci li ci def parce que giri noonu lay doxee àdduna am noonu la ciy doxee mais da nga ja da nga yet kon li li dañoo gis président écrit à Fass Benno génne. Gris Bordeaux mhm. ci loxoom ci Ada Fass. Mhm. non man loolu dégguma ko sax mais gis naa gars yi free Ada Fass boobu gars yi taxawloon gis naa ñu ciy réclamer Gris mais bëgg leen xamal na rek ñoom liñ ciy daj Gris mi ngi ciy daj lu ko raw. Hmm? ndax affaire justice moom xam nga ne. niñ koy doxee rek mooy da nga koy mën a dox si suuf rek. du lu nit di fésal wala dara. Mm-hmm. dangay dem ci ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi. Mm-hmm. waaw te moom wax dëgg yàlla mu ngi ciy def ay jéego. Mm-hmm. te yaakaar naa résultat bi tamit bu génnee ñëpp dinañ ko gis loolu rek moo ci am solo. waaw ndax Ada Ada Fass moom suñu rakk la quoi ñoo bokk gox yi ñuy défendre te tamit wax dëgg yàlla nekkin bu rafet lañ la ñu nekk quoi booy bu kul la. Mm-hmm. Ah, te affaire yii moom al na ko yàlla daal lafal cat génnee ko ci li mu nekk yëpp mu ñëw continuer waat yoonam. Mm-hmm. Mm-hmm. yaakaar naa ne yaakaar naa loolu nga ci wax mooy lu am solo la Gris Bordeaux mu ngi ciy dox loo xam ne nii bëri na ñi ciy wax te doxuñ ko ci tey jii yaakaar naa ne euh, Gris Bordeaux ñu ngi koy xaar ci kanamu Ada Fass ndax ak Ada Fass révélation la boo xam nii réew mi bëgg nañ ci li mu nekk ñëwaat ci wàllu làmb tay ji ngir mhm. bo amone lay taggo ci Ada Fass ak Gris Bordeaux mi sama mi nga xamne mo ki blessure yeen kaddu nga ci tek ñu taggo yow dugal bi amateur wa xana rek di massaw ñep rek wa diko di massaw Ada Fass diko ñaanal yalla chat lool xam nga kon rek li ñuy wax rek chat mom bu rayul semal na sant yalla parce que mënon nako diké ci yeneeni mbir yu gëna graw li mhm. waaw di ñaan yalla mu yamale ko fa mu gennat ñew reprendre carrière am normal fépp fu mu bëgg a yegg ci làmb mu yegg fa. Mm-hmm. di masawu Ama Balde waaw giri tamit ñu ngi koy masawu bu baax a baax waa di nuyu nag gars yi nekk ci ligne bi yëpp. Mm-hmm. yow it ñu ngi lay ziar. jaajëf